àdduna kenn du ko yenu dañ siy dox lii xew mooy ku baax nga sax mbaax dégg nañ ko fépp xam nga Sénégal benn affaire moo fi am boo la nit tooñi rek baax day siiw <laughs> ku la def lu dul yoon nga fippu àdduna bi si boppam ñoo dee àndal yàlla yooy ànd yàlla na la yàlla dolli sutura ñii mu andal kontraning nañ ña ngeen bàyyi sa penc ma tabaarakallaahu ay bokk pire nga am parce que kéro ba ñi foofu si kambaren fekk sa bokk yi foofu suma xol dafa sedd guy ñi ma àndaloon noonu parce que man nit dama bëgg julit mu dox doxalinu julit bokk wàññiwul dara ñi nga dëkkal comme rasulullah mi fi gën day wax ne waxoon na ne sax dem na bay bëgg dugal sax mirage mi nga xamante ne euh, moom la julit am mu ne ma si dugal sumay gaa nañ si dugal sax di kii di bëgg a dugal pour que dëkkandoo yi dugga am nga loolu lu baax la bi ñu ñëwee nag sa gaa yi sant nañ la mais manqué nga leen wan yàlla mii dara tëwul yàlla na la yàlla jàmm sooy manqué ti day manqué ñu ne kat dem nga màkk ñu ngi toog di la xaar yàlla na yàlla defal loolu ku baax nga ku gore nga ku xam ñaati naat ñooy nen par jour nga yàlla na la yàlla dolli sutura parce que seede yi gars yi seede la foofu ah man de bëggoon naa ko bëggoon naa ko de parce que lu rafet moom dafa rafet rek Euh, yéen ñii di au conseil bi ak waa kër Maodo yi naka la ñu tuddati sax CNL kontaan nañ si yéen yéenay Kaber mag ñi dañu bëggoon pour que reerukaay yi fa la ñuy waxe gune yi dëgg pour jàmm am lii gune yi def ci réew mi dama naan gune yi rek waa may may gune lañu su may xarit lañu su ma lépp lañ waaye lii ma wóor mag ñaa ngi si biir wax ji ko ne mag ñaa ngi si biir tooñ nga benn ab lam du yëngu xale yi rek mënuñoo yëngal mag ñaa ngi si biir bu ma génn rek bàyyi boo mag ñi ne noo warul woon waaye ma tey xale nu ngi koy yare sa booru sa sa reeru kaaya fa la mag ñi daan waxe dëgg diw xam nga ne yax di wéen bokk diw a bokkoon ndey baay ak ah, diw mu jur diw nangam nangam ba mu ëgsi si sib gaara sam mu ne maa ngi boo léegee bëgg bëggee jàppante kooku daal di seet li am si réew mu fan yi du dëgg du yoon mais mënuñu woon wax dëgg geex yoon wi si tàng tàng bi parce que ñu koy waxoon mag ñi dañ wax ne ab sebaxawa mbala tàkkar kenn du si am deet kenn du si ji daa jiyem lakkari waaye li wóor mooy yàlla mii yoroon mu nekkoon fii doonoon ay guni tey ñu nekk mag am ay guni yu fi nekk bu coow amee itam waxtaan rek ba defar ko parce que ay bunte du ñàkk am na laa xamante ne manka waxaat mu jëm si nguur gi guni yi nga xamante ne nu ngi leen téye si kaso bi awul benn njariñ nañ leen bàyyi ñu dem seeni kër añi reer ndekki njogono ko sa kër ya lu dul jàmma-jàmmaa ka gën moom la mag ñi wax te bari na si loo xamante ne kat tëral nañ ko si gune yi ndax nangam ak nangam gune gi dañu def li dañu def lale waaye ah, benn lam ba léegi du yëngu ñaa doon jàppante gune yi xam nañu nun xam nanu ka nekk xam na waaye Euh, euh, gun yi daal li ma si xam moo la bal na reerati nuy doom nañu toog beru si kër baaxul te bu gun yi toogee ku la kalaame sa doom bul faraak sa doom bàyyil ba timis nga teel a ñëw reer se mu nuyu la normalement nga nuyu ko normalement suñ lekkee tuuti nga nekk waaw yow loo demoon poo demoon nax ka ba mu wax la nga nekk wax nañ ma lii nga def loolu gàcce la su ko defee sa doom boo léegi dina réfléchir faal maa ngi laa ba tey ku baax nga dégg nañ baax teg sunu la woon léegi gis nañu la xame nañu ay mbok lañu parce que noo bokk Cambérène noo bokk Wakam noo bokk Ngor noo bokk Yoff waaw waaw nga dëgg de. waaw. Hmm. bëgguma kan. dëgg la. ay yuur lañu xam nga. dëgg nga wax. makan lii ngay def lu am solo la danañu fàttali sunuy maam. lii xew daal mooy senegaal dañu bëgg léegi gune yi seen bopp ah mag ñi benn coupe benn chaise ka nekk naan ngiis ngaas ngiis kii neex yàlla kooku ko yàllay dox yàlla na doon ki nga xamante ne mooy kay jubal Sénégal di jekkal Sénégal ñu bañ a xar Sénégal mi naan la ku nekk si yow sa bopp dang nga war a jàpp maa ngi Sénégal Sénégal suñ mi naan la sunu cooyee ba xutti ko dina jafe lool pour ñu defaraat ko àdduna nanuy naxante naxante du wàññi nit dara bay boo ñu ne da ragal bay boo ñu ne nii waaye yow jàmma ji nga xamante ne moom nga war a séqaa say bokk sant nañ si yàlla lool o conseil bi ma di leen wax ne nguur gi maa ngi wax léegi naan kii mais dama bëgg rek mbir mi gaaw pour que gun yi génn gaaw ba ko defee nu mën a tabaski tabaski génn normal parce que xar leen yi seer na waaye yàppa yu nooy na faal ba ma ñoor <laughs> yàlla na mii dara tewul daal yàlla na leen yàlla doli sutura mayleen leen ngeen dund ba doyal lii nga xamante ne moom laa ñaan ci wax ji ak lii nga xamante ne moom laa wax defe naa ne lépp jàmm la ma bëgg daal mbon la bëgg-bëgg conseil bi moo la bëgg-bëgg Cap guni parce que jaboot la dal doom rek miti na waaye itam nanu waxtaan ak goni jàmmaam waaw yàlla mii dara teewul dinañ defal sutura saldiga mbéy gay jeen koor gi passé or loo de oh d'accord <laughs> léegi léegi damay mitan bon bon mi temps yéen ñëpp si yéen képp ku nek ci yen ñu ngi lay jox sa way di di la jox sa cër ah ki doon commencé di wax legi, présenter na ñep ba mu dess bopom présenter wul bopom mom mu ngi tudd Mandione lay kan am taxaway bu reuy si ginaaw mbay Fall si mouvement bi nga xamni mom lañ doon dox di jàppale Mbaye si ci problème bi mu am ah ñu sant yàlla nag parce que dañ ñëw fekk ci askanu lebu woykat ba dafa ni yasriba la jóge yasriba ak beñab jàmmalaay diggante booba dandana yaa naawe fee cëppeelu fii sampal way gëm ya kàmbareen yasriba ak bay ñab jàmmalaay diggante booba dandana yaa naa we fee cëppee fii sampal way gëm ya kàmbareen waaw ñu ngi nekk nii à deux pas xunt mi ah ñu ne ba mu jógee yasra ba mu ngi ñëw fii cëppeelu fii si yanaayoon màkka waaw mu ni donc fii la cëppeelu si xunt mi xunt mi nekk fii à deux yi fii nga xam ni moom la ñuy waxee ñu ni am na fa junni at junni at yooyu lu mu fa doon def di wër bis mu nekk mu wër àdduna di xool ci ban xeet lay feeñ yu ne guddi gu nekk mu wër àdduna seen naa limaamu moo ko wax moo ni man maa doon démb man may tey maa naawee yasriba jëppeelu fii guddi gu nekk mu wër àdduna di xool ban xeet si lay feeñ waaw mu daal nit kat daal nit yàlla wan ko xeetu lébu kon kay yéen yéen wàcc ngeen yéen ñi nga xam ni si la gën ji seen xeet si la gën ji mindee feeñ kon wàcc ngeen kon taxawaay bii rek ngeen mën a am parce que su fekkee Seydina Limaamu dafa ñëw woote fii si Ndakaaru yéen ngeen di lébu képp ku ñëw fekk si leen yéen lay jàppale ay wu fi am seen ay la soo leen ko fayul keneen waru ko fay képp ku ko fay yéen lay jàppale kon alhamdulilahi rabbil alamina bi nga xamee ni yéen ay wi ngeen xam ni dégg ngeen ko ngeen xam ni si seen bopp la dal parce que lu xew si kër Seydina Limaamu mi ngi si biir lébu yi gën daal di jóg gën daal di jóg daal di ñëw fekk si ñu ah wax na délégation bi délégation bi mënoon na gën rëy nii wante dafa yàlla dafa dogal bis ni ki tey suñu benn imaam yi doomam dafa génn àdduna bi ñuy ñëw si leen ko doon rob loolu moo tax ñu demee nii délégation bi nag ñii mu présenté ñu am taxawaay lañu am na xale xale nañu dëgg mais dañuy wax xale mais ku nga xam ne am nga 40 jëm kaw dootoo xale mais ñu am pas-pas lañu xale yi ñu jàmbaare. ñu jàpp diir ci diina ji lañu bokk imaam Ndiéne Faye mii bi nga xamee ni ñëw ngeen Cambérène fa ngeen ko fekk mu taxaw ñu taxawu Mbay Fall moo koy jiite sa jàkk ja di jarbaatam jaraaf Youssou Ndoye bi mu fi ñëwee dégg na li ko imaam wax cofeel bu mu am si moom Libaas Diop kan ma la ñu présenté Aziz mii nga xam ne moo yor communication bi ñoom ñëpp ñu am taxawaay lañu ci biir Cambérène alaa rawatina nag laay laay ma nga xam ni dogatu Seydina Limaamu la moom tamit jëlee tekk fële ñëw taxaw ndax Cambérène waane bi suñu bët xonqee dëgg la waa Cambérène jog nañu mag ñi jog nañu ndaw ñi jog nañu autorité yëpp jog nañu wande suñuy root kuy root ndaa soo amee ku ñëw yennu la paan dolli la si danga nga war sant di fay su amee ku indi ndox fayle la bokk na si te yéen yéen a ngi si biir loolu moo tax sant bi leen di sant am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm si seen taxawaay ñu ngi leen ciy gërëm li nga xam ni solution bi nga xam ni am na amandika ama ama ama am nan si parce que am na lu des solution bi nga xam ni amadina gis nañ ci seen taxawaay ñu leen ci sant bu bu baaxa baaxa baax a yu sundoy ak yeen ñëpp na ngeen xamni ñu am ciofel lañu ci yeen surtout jaraaf yu sundoy parce que fekk nañ ay jataayam miraran dégg nañ ay waxam xam nañ taxawayam donc seen kurel bi yalla na si yalla def loxom ak sayyidna limamu ba ngeen egg fi ngeen ko bëggal ah di wax tuti nak di gërëm parce que yeen ba ngeen fa ñëwé ñun wax nañ leen mbir mi nu mu demee de A à Z mais soxnaam tamit muy Aïcha Anne wax na leen problème bi fa mu commencé ba fi mu yam ñu rafetlu taxawaayam si mbir mi waande tu nga ni dut teew ñu yaan mi ngoog comme ñoom mii nga xam ni ñuy natal moom mii nga xam ni donc mom, mom, la mom, si mbir mi si mom la dal suma ma dina len léral mbir mu du démé demee mais ngeen xamni dal wa kambarin gep gërem nañ len sant nañ len dina wax tuuti nag parce que Ndione lay bi muy wax xamal na len ni ki mak mom ño nekk ndox xale bu ndaw Seydina isa namu sampé kambarin moy da fay am ay mas mas moy ñi nga xamni ño bok génération

xalifa ya nga xam ni ñu nga Cambérène nga xam ni nekk na ak ñoom taalibe fekk na leen fi muy Baye Sidi Thiaw Seydina Mandione bi mu fiy nekk yàlla na yàlla dolli leeram boobu ñun xale yu ndaw lañu mais yàlla xam na ni xalifa bi ak bi mu fi nekk tey jii ñun ñoo defandoo école sa kër ga lañ daan foowe mais Baye Sidi Thiaw mi nga xam ne moom mooy taawu Seydina Mandione nekk nekk nekk nekk troisième xalif

am na ñu nga xam ni seen wërsëg si sa loxo lay jaar si yow lañ ko jaarale pour nga jox leen ko waande lépp lu ko suñu borom sedd bokk na kaak jaam yàlla yi waxuma bokk na kaak ay mbokkam waxuma bokk na ay dëkkandoom waxuma bokk na ay mbokki taalibeem mais ñépp la ko bokk bokkal sans distinction lépp lu mu am bokk na kaak jaam yàlla yi di def xalé bu ndaw ñu nek xalé bu ndaw muy def nekkoon responsable au niveau de la BNDES nek chef d'agence nek chef comptable ba mu jige mu nek chef chef BNDES Paris avant muy ñew bobu yépp bi mu si nekkee di daan jël alalam di ko def ba mu demee bitim réew day jël alalam yàlla def na man mii sedda parce que am na alal yi nga xam ne da daan teg sama loxo ma teg si waa jàkk ji wala si yeneen man ñi yoon lay wax naka léegi jàkk yi kenn mënu ko si diine ji lu xew kenn mënu ko si mais ni ñuy yore dëkk bi sax kenn mënu ko si parce que parent d'élève bi tey su taxawee moom mii moom la di tabax ay classe di organiser ay séminaire pour le département de Dakar, pour l'ensemble des inspecteurs. Maintenant, on a organisé séminaire pour les enseignants de Cameroun. Mais nous avons organisé séminaire, si Kerem, nous avons organisé un séminaire pendant une semaine. kooku kan la ko defal waa Cambérène la ko defal waa Cambérène la ko defal dëgg mais defal na ko réew mi yépp la taxawee mais nag ku nekkal yàlla yalla nekkal la jàkk ja moo wax de imaam moo ji muy ji muy ji muy jiite moo fay jiite dégg bëccëg ak juma daanaka moom moo def lépp moom mii moo def lépp loolu nag mënul niil mag ñi dañ daan def suñu toogee ren ba déwén gaañu sax ñu yaakaar ni ñu yàlla da leen fàtte ñu baax ñuy jaamu yàlla yaakaar ni yàlla da leen fàtte mais sooy def di def te amuloo yeneen nattu yi ah yàlla moom su lay def da lay nattu xool sa ngëm-ngëm parce que jox na la teranga su la tegee nattu nag mu xool naka ngay taxawee alhamdulilahi la alamina ba nga xam ne ni lii ngi mu kii xam na ni ndogalu suñu borom la te xam na ni daf si day jox parce que nattu la ba nga xam ne moom àla kulli alin yàlla bindoon na ko lu jiitu juddoom ñu ñaan nag mu yam foofu ñaan li nga xam ni moo taxoon mu dem foofu yàlla na yàlla gën a leeral mi ngi koy leeral mais yàlla na koy yàlla gën a leeral di leen ñaanal bugguma gën a guddal bugguma gën a guddal mais ngeen xam ni daal tànk ya ngeen jéegu ba ñëw Cambérène yàlla defal na leen si yiw yu baree baree baree baree bare bari à part li ngeen aw li ngeen xam ne nag réglé ngeen ko

bégal na leen bu baax di wax ni yéen yéen a yéen ay néegu Seydina Limaam te te te amoo leen sag bu ëpp Seydina Limaam yéen lébu yéen lébu laa wax amoo leen sag bu ëpp Seydina Limaam leen ko ndax mooy seen mbokk fii si ndakaaru damay wax ni bis bu nu taalee ndakaaru ñun lébu yi fu ñu jëm maa ngi bàyyi loo xel loolu nag waa ndakaar ñun Dakar la ñu am Dakar mooy suñu sakk Sénégal sax la mooy suñu sakk ndax léboy defar lépp dama damay wax ni bu Dakar yàqoo ñun fu ñu jëm kon nag du ma wax Sonko du ma wax Macky Sall damay wax damay wax ni ñun Dakar la ñu am kàddu gi may wax nag Serigne Ablaye waxoon na ko. ba ñëwee sa diggu yoof ni ni góor gi dañu bëgg ngeen jàppale ñun ñu taal Dakar sëñ Abdoulaye jël kàddu gi nii ñun bu ñu taalee Dakar xam ne fu ñu jëm fii la am kon nag bu ma bu ma yi damay wax ni yéen lébu yi amoo leen sag bopp Seydina Limaamu ndax nag moo bokk ak yéen meen ñii seen maam la ñii seen nàngam la ñii bokk ak ñoom si yaay ñii si baay kon nag ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu bu baax. sunu mbokk mi toog saa bu nga gisee mu muy sedd Seydina Limaam àgg na sunu xol lool nag te laay ni ñi gëm bàyyi laay bàyyi na la xel ndax nanu amul nag lu ko di nuyu sunu mbokk yëpp maado yoo ngi nii ma ne rek mbokk la si maam Coumba Ndoye bu man nekkee si yéen taxawaay maam Coumba Ndoye taxaw si yéen Babacar Fall mi nag lu tax ñu ànd ak moom ah. nit boo nekkee si dëkk am dara bokk ak sa dëkk bis boo xew leen koy xam waa Cambérène ni xeex lu ñuy xeexal Babacar Fall laaj leen lu tax Babacar Babacar mën yor Cambérène gépp de mais ak mbaaxam moo tax taxawaayam boobu ba tey nag li nga xamee li nga xamee mooy taxaw dëkk bi guddi mu ne guddi mooy lu nit mënul wax ci kaw ci bëccëg lu ñëpp gis kon nag boo nekkee ci jafe-jafe ñu koy tooñ ñu koy tooñ ñu koy tooñ di ko jaay doole te xamuñu ni doole yàlla ak yor mu ngi nii ku dugg kaso ni ne maa ngi sant yàlla ndax mu fa duggee jaamu naa yàlla kon nag ragalul la fa mu jëm ndax tooñul sëriñ Ablaye kat doon na wax ni bu leen bu leen ragal dara mais maytu leen tooñ bu leen tooñ mukk mais boo leen tooñul leen ragal dara te nag day jàmbaar fu ma ko fekkee rek dama koy wax am nañ ci ay taxawaay gis nañu ko ñun nag ñun nag lébu yi message bi ma jox ñun lébu bu bu Dakar tàkkoo tàkkee fu nu jëm ndax nag am na ñu bari am nañ cosaan ci àll bi ñu suñ cosaan Ndakaaru la kon nag senegal mu defaru ñeneen di ko dox lébu yi ne fi ah loolu gàcce de Dakar di dox am ay jafe-jafe li muy ne fi am si taxawaay loolu la sunu maam nanguñu ko woon sunu maam fii lu fi baax lu ne génnul lébu gi Dakar na du ay xeet Sénégal du ay xeet ndax ñëpp bokk mais nag ku ku ku ku déglu mag ñi di nga xam république lébu du du lii de yàgg la dara njiitu ko fi seen taxawaay ak seen bëgg. Sénégal kon nag ñaax laa leen def leen projet bii Mbaye Fall wax suñu baay Mbaye Fall mii am si taxawaay seen taxawaay nag da dafa war a nekk si biir ndax nag ñun lébu yi dompat sax sot la bokk ku jóge sa nangam ñëw fii si fossé jàmbur di si def loo xam te ni tegul fenn ngir nguur mën naa wadda de nguur gi mën naa jeex bu jeexee nag ëllëg nooy def te lii mënul jeex tooñ baaxul gor du tooñ kon nag Mbay Faal mi di nit ko am ku am solo di am comme taxawaay dénk nañu leen ko mais nag njëkkul fii ndax gërëm na Cambérène gërëm na ay sangaam di wax la Seydina Limaamu gërëm na ay mbokkaam ñu mbokkal dëkk ba gërëm na ñëpp ci taxawaay bi ndax ndax coow lii ñëpp dañoo génn taxaw ni ni bàyyi leen tooñ suñu xeex la nag la ñun dunay ragal de ragal de laajal policiers yi dunay ragal de dunay ragal de waaw dunay ragal nag mais mais nag boo boo laajal suñu jaboot ñun ñun ñun xeexu ñu sonk buy xeex xeexuñu Macky Sall bu bu def nangam xeexuñu yokk eh, ceeb wala diwliñ Euh, xeexuñu lenn mais boo laajee suñu mbokk di ñu dégg di ñu gis xeexu Cambérène mosoo ko dégg ci dañoo yokk ci ceeb wala diwlin wala walla wala procès Sonko la wala procès Macky Sall déedéet lépp luy xeex nag lenn rek la boo ñu laalee di ñu gis guddi di ñu gis ma bëccëg bu bu guddee ñu xeex yow bay bëgg dee bu bu bu kiiwee ñu def nangam dëkk la bu sëy naay saa nag tëdd. dëkk la bu buy gàddaayu Seydina Limaam kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di bu baax di kontaan lool fii fi ñëw nii sunu kër mbokk la suñu këri maam la ëppaloo leen fi ëppaloo leen fi ñoo ko bokk bu ñu bu ñu génnewoon maanaam dugg fii laxatu fi ndax suñu yi maam la yéen suñuy mbokk ngeen suñuy sak ngeen ndax bu leen gisee si Ndakaaru gis leen si Sénégal ngeen ngeen defar suñu fiyat lay doon boo leen gisee boo ñu gisul xam na ni ñàkkoo leen fayda xamoon na ni kenn du leen fooye am ngeen seen dignité fa leen seen fa ngeen gisoon seen maam ya fa ngeen nekk kon nag jër ngeen jëf ci ci Babacar Fall mi ngeen déplacé ñëw ba Cambérène dafa réussi ñun moo tax ñu ñëwaat fii wax leen jërë ngeen jëf ñu leen nag jeexagul la xeex bi jeexagul de kii ay at la toog ñu ñu liggéeyam société bu mu fere ay millions ñu ñu fexe yàq ko kon nag nit nag war nga boo ko yàqalee liggéeyam war fay war nga taxaw gestu ko buñ ko bàyyi mu wéet nañ ko jàppale wasalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. Euh, ngoon bu nu yàlla defalee sutura tey gii gan gii am du gan kaam gii la dëkk ngor la dëkk yoof la dëkk tubaab jalaaw la dëkk fépp la dëkk parce maam li maamu laay mooy sëriñam Mam ni wa mulai. This one mam. Kumandoi mo ya. Set up kumandoi. Bona on diutay dafa dafa dañ ko war dang eh, na naka mu sax grand jaraaf mi dañ ko war a jàngal ñaari xulaa onze te que si ab sita ma koy jàng bu ma koy jàngee mu jàpp bon lii fi nekk nun sunu baay dafa waxoon ne bariwuñu nañu téyante mag ñi loogu lañ bëggoon téyante boogu nag moo indi tey gii ginnaaw fantasiro ñu degewaat ne lébu gépp la ñu bëgg nu ànd doon benn damay lu leer nag lébu laa wax parce balaa ëllëg ngeen ñëw ne da ngeen may tiñal andil ma ay espèce bëgguma loolu dama ne fii nun ñëpp ko bokk senegal benn bopp la lii may wax ni xam naa ko bu baax yéen olofal olofal seeni olofal manin ma olofal may olofal nu daje daanaa dégg rek ñu ne ñetta ñetta doon tukki daje ñetta xaw ñaar nii Fambata Ndiaye parti waaw léegi nag yàlla def na sutura ba fii mu toll nii waxtaane noon sunu juboo jéem nañ def tout ba lépp a ngi si yoon ku yàq nag yaa yàq ay nit bu nu àndee ku sa dox ak lu yàq nañ ko wan ne yaa ngi yàq te buñ ko ko waxee tamit mu bañ a mer nanu ànda bariwunu alaaji mbay faal mi dama ñëw rek mu tappal ma garaat gopp def ma gopp ma ne waaw ma kontaan si lool nag parce que mag ñi noogu lan daan fooe waa Ndoyeen bu ñu dajee waa Faaleen waa Faaleen nooy seen buur waa Ndoye nag boole lan nu surtout heure bi ñu daje nag ma moom njogonal <laughs> ah waaw gisula léegi nag jàmm am na si bugi gi nuy ñaan bu nu kenn waxati na juboo nu nuy ñaan parce que fii noo ëmb ñëpp mag ñi day waxoon ne ku fi fanaan trois jours lébu nga mbay faal ngandam lébu la punkalam lébu dégg ngeen ko sànq mu ne mu mu ba demee këram moom yàlla dimbali woon ko moom maam Seydi ah bay bay Seydi Thiaw waaw góor mu natal ka mille waaw waaw xam nga loolu nga wax d'accord ah man bi ma gisee gars yi di wax ni gis suma kër gi léeg-léeg nga gis ku romb joxoñu joxoñ ba sonn seeni baaraamay dagg rek <laughs> suma suufi maam la alors nu dagga ñoom ñu ne non dégg naa sax ko ne non bu dee nu def ko def ko si patrimoine wakaam bu ñu ko defee patrimoine wakaam seen kaw nan yëpp nu dem bar sax dafa am façon boo xamante ne nit ñun warunoo soxor Sénégal <clears throat> damay wax ne mu ngi dox da waxuma ko pour neexal président Macky Sall waxuma ko pour neexal président Abdoulaye Wade waaye ñun dañu bëgg président Macky Sall na gën a sawar président Abdoulaye Wade gën a sawar Abdou Diouf gën a sawar ndax lan damay wax toujours ma ne hamburger am na beneen bi saucisson bi ba daan ba ba daan dem géej nii ba am xaritab tubaab mu mu mu mu mu daggalab saucisson képp ak si mel ni mburu jox la kaa baa demee si kër gi sa yaay di la dóor boo tëdd danoo dóore man ma yaay xaw na ma seeree xoj bàyyi bàyyi yàpp mbaam bàyyi yàpp mbaam saucisson bi ba xonxa bi dan ko dan ko ràññee na ko waa léegi tey bu ñu toogee gunu la suñu sonxa merguez a xale la duñ sant yàlla atom ah, atam lu ma kasi daal lekk cere cere ceeb kinkiliba cere ceeb kinkiliba ba say say yenn yi kalaake tey jii ba tey jii dañ naan togg nañ ceeb ba weex togg nañ ba weex ba xonq nañ ko suba ginnaaw suba dañuy defar ay ay ay soos waa léegi eh, lan la Sénégal yi bëgg man dama jógeegul si yàq mii guni yàq guni yi ni ngeen xam ne nun euh, bariga yi fi nekkoon sa daan yëpp juriñ gi ba ñëwee da nga ko daan jëlee eh, dajj ka tàppaka ba mu nooy i def ko ay senga mu wër mu wër nuy kër faa aw faa mante aw rek seng yi kor la rek xotti sa mbuuba waaye faa loogu métti te doo am kenn kaa kalaamel seng <laughs> waa léegi tey am nañu ay miir am nañu tout goni nii seeni papa def ba defar lii fi nekk fexe leen ñu defaraat leneen teg petrol ba génn na lee ngaa ñëw lii ngaa ñëw sant yàlla waaye Mbay Fall man dey dama lay wax ne gor piir nga jullit piir nga tam laayen gii nga jokkoo sama waa kër maam bii nu ñëwee soow si sa kër ñoom ñoogu ah, la waa yoogu danu na ne bay faal day bin ko xamoon Mbaye Fall moo la taxaw waa Cambérène moo la taf lii moo la def lii te bi maa jóge ma kër boo ko xamaloogu waaye nag ba léegi si def lu baax nga nekk réew mi dañu toll foo xamante ne nit su fekkente ne mu ngi toppatoo ay bokkam ay dëkkandoom ay léppam wallaay mat naa ñaanal lii nga xamante ne moo tegu nii domen baa ngi nii bala màkk sax nu ne ne dañoo am dama ragal piqûre mu ma maa dem ba màkk dama ni waaye fii si domaine gi mën nañu fee dox te yaakaar ne fi ñu nga Macky Sall bu ko dana si kontan lool ya waxuloo nañu ñëw leen ñu histoire ngeen nu ne jàppaleen si li ñu doxal ko ba ka defé té lok li wakkat mo la nu prol dé jamm rek daan na li fi tey ñep nañ ko liggéenti euh premier ministre xamna né dina bu gisé li dina wax né garaaw dé ci mëna jëm fo fo la jëm fo wala ma en première bala ma président gaay su ko defee ñu waxtaan ak ñoom si jàmm dëgg génn parce que li dafa neex a génne waaye audience ba nu si am tëm danu bëgg rek ba noo dem nu ànd woo tey mbokki Cambérène ni ba nu wanee am ñu dem ñu dem ñu dem toog waxtaan ak ñoom parce que nguur gi yàkkamtiwuñu lu dul loolu jéego yi si nekk yépp tabarakalla xanaa di ñaan ñaanal al di premier ministre tamit ko bala si dossier bi, nit la bu nga xamante ne man sax ba ma génne këro bureau dama ne day li day moolam jàng ka xamante laa ke expliqué dina ko comprendre uteeg gera yi sundoo yi yem CM2 ma ne ki liggéey bi bi mu liggéey ba mu ne ma ba nekkee nii ba soobu yàlla léegi mu génn ma ne waaw kañ jërëjëf léegi nag lii des nag premier ministre baa ma déggee parce que yii xam ne ay téléphone baal ma déggee moo la euh, kii bi ndokkat bi walang bi daxa xaw a tuuti dañu war a yokk walang bi suuf si dañ kaa liggéenti yin jox ko borom dégg naal nee nanu négocier ba nu yàqu ba ba perte sax baax na loolu ak njulit ay wi la bañ mbay ku baax nga yaa ma gën a baax de barka laa jubalik parce que xam nga la moo tax man ba doon man mii dama seet si xeer rek gaal gi la ma naan kër gël encre bi na kork si xeer wi ba mu dëgër ma toog benn place comme nag yow jàmm moo nga yëkkati te mag ñi bàyyi woon fi ne lu dul jàmm jàmmaa ki gën war ngaa neex a jubóol yàlla na leen yàlla jàppale waa CNL CNL bi ak waa au conseil bi